suma amé amee may a priori lolou lay c'est-à-dire que mën na am ay divergence dans le management de l'assainissement avec son ministre le premier ministre ou le président tranché en faveur parce que quand même ministre pour pour légitimité DG quel soit alpha donc so mënul dégo ak ce ministre ci option yi wala ci yooyu nonou qu'il faille faire euh, un choix le choix peut être porté sur le ministre qui au moins une peut-être légitimité un peu un peu politique donc mais je ne sais pas ndax loolu wala certainement les langues vont se délier mais li ci am solo bam ci solo moy dafa am ko mom lañ jaglé à titre discrétionnaire mm-hmm. nommé ak dénommé mom mo def ñaar yépp le délai est tellement court que nous sommes obligés également de nous poser des questions mm. lan mo xew est-ce qu'il y a eu erreur sur le casting je ne pense pas Cheikh répond parfaitement au profil cadre là xamna na naka la yoré rew parce que c'est un transfuge du PDS nekkoon ak maître Ablaye Wade nekkoon à l'Assemblée nationale amna na expérience état ak gouvernance ak yoy nonou donc euh, lu mënti doon mën ci wax pour les choux gras de la presse mais l'important moy dindi nañ ko demb am na keneen ku fa tek té liggéey bi normalement fay jëm kanam. d'accord Momo est-ce que dindi dindi docteur Cheikh Dieng mën am ben sur son avenir dans la coalition Diomaye Président. Euh, en tout cas Cheikh c'est quelqu'un que je connais. bien oui ak tempérament ak waaw je euh, moom il est Pikine te am amna lu bari lo xamanteni peut-être euh, Pikine mu koy def et Pikine au moins moom moo nekkoon suñu représentant ci biir gouvernement bi bon mon rek ngeen ci amoon. lañ ci tout le département. oh oui. vous n'avez pas quelqu'un au gouvernement. Euh, ah mais il faut quelqu'un ñeu quoi il faut ñu comme Guéné, nañ ko même pas trois mois nañ ñu dugalaatal quelqu'un. donc <laughs> voilà euh, bon euh, les circonstances de son limogeage je préfère ne pas ne pas avancer parce que dans les jours à venir dina def peut-être une sortie pour hmm. expliquer je pense dans les jours à venir il y aura une sortie pour peut-être expliquer les raisons voilà, son avenir mais quel que soit Alpha lu ci mën a xew mooy c'est un allié de de de la coalition Diomaye président. fii bu kat parce que bi ñu tànnee Mame Diarra Fam ci ci députation yi PDS ci la fipp daal di génn. non le problème est plus profond que ça ça. non le problème est plus profond que ça ça. au PDS il était pressenti maire de Pikine bu amoon sax contentieux judiciaire ak. Timbo Timbo non non non non non non non non non non non en fait en fait lolu bon lolu mën nañ ci wax mais mais mais mais mais mom il savait mhm. nous qui sommes à Pékin ñun ñëpp xamoon nañ ni euh, Chili a perdu les élections donc lolu c'était c'était non il avait non il avait perdu les élections mënoo perdre mënoo perdre ele mënoo perdre dëkk yi nga xamantene comment dirais-je qui yi nga xamantene commune yi nga xamante ne waaw commune yi nga xamante ñom ñoo ëpp électorat ba paré bëgg gagner, gagné bëgg ne yow gagner nga élection yi au niveau départemental c'était pas possible d'autant plus que amna après ay alliés yu bari yu nga xamanteni ni ñi nekkoon ba ci Bougane ak ñeneen dañoo ñëw rejoindre le camp présidentiel nous on savait que que que qu'il a perdu mais c'est il dafa mëne won ben bataille non non dafay mëne ben bataille parce que euh, la plus grande erreur de la coalition Wallou du PDS c'était de, de prendre Cheikh Dien comme tête de liste départementale. Ah bon oui oui gis nga euh, euh, euh politique surtout politique qui base la femme la réalité Qui ferait mieux Abdoulaye Diop Abdoulaye Diop non Abdoulaye Diop du de, le maire de le maire de Guinaw le problème le choix c'était Abdoulaye Diop peut-être. mais le problème c'était que moi lan lan moo tax ñu choisiroon Abdoulaye Diop ci élection yële passé mu dem au à à l' élection avec Timbo euh, euh, Timbo gagné ko te jamono jooju ay ay ay kii woon ce sont les conseils qui votaient les conseillers qui ont trahi Abdoulaye Diop nga xamante ne ñu ngi woon peut-être dans l' opposition wala ci beneen kii bi ñu demee ci ville bi dañoo jël li nga xamante ne moom mooy seen voix jox ko Abdoulaye Timbo alors que il te ñooñu ils étaient de ginnaaw raay comme Abdoulaye Diop. est-ce qu'on comprendre loolu tax Timbo légèrement le la rombee Abdoulaye Diop pour mën nek maire maintenant élection yi ñëwaat ñu né Abdoulaye Diop tête de liste départementale mu wax xex xex xex ba mom diriger la la liste départementale té yow sa commune sa base yow déjà sa base bi tu ne euh, maîtriser woo déjà commune bi liñ la fa gagné bari na bari way bo xamantene yow pour nga mobiliser sax à à Djiddah Thiaroye Kaw c'était un problème déjà bi muy revendiquer bi muy wax naan ay dafa war a dañu euh, mooy bi ñuy def ay marche yooyu noonu jamono jooju di revendiquer la victoire mhm. su ñëwee jit ji da caaray kaw mën nañ def 5 heures 6 heures de temps pour moom mu mobiliser yeneen communes yi ñooy mobiliser PDS yeneen communes yi ñooy mobiliser ñëw ñu ànd ak moom def marche donc c'était un problème nous on savait qu'il a perdu à Guinaw à à à Pikine maintenant euh, son avenir dans la politique Mom, il avait créé dans la coalition il dafa créé créer. Euh, naa ko léegi allié là. il a créé fait pour t'offrir pour dem ay élection mu xam euh, peut-être instant bi mënul woon mënatul woon dem la coalition Diomaye et je pense que comme nous nous ko waxee ñoom allié yëpp que si muy Cheikh Bamba Dièye que muy ñeneen ñeneen ko ñoom bi ñu ñëw ci coalition Diomaye ñëwuñu woon pour poste mm-hmm. mais dañoo adhéré ci idéologie bi nga xamante ni moom la euh, Diomaye ak ak Ousmane Sonko porte su fekkente ne loolu la ça ne doit pas poser de problème buñ ko jëlee ci ci ci ci ci ci bopp ci bopp ONAS waaye suñ ko jëlee ci bopp ONAS mais lan moo nekk seen problème d'abord ak moom ak le premier ministre ba ñu jëlee ko foofu noonu est-ce que problème boobu noonu. dina mën a tax que c'est le premier ministre qu'il a un problème. saa waay ma wax la benn affaire. gouvernement bi gouvernement Joma Exonko, c'est le premier ministre qui choisit et qui déchoisit. ah oui d'accord ah, non c'est quand on parle de tandem tandem c'est quoi tandem c'est c'est c'est benn vélo bu nga xamantene on dafa am ñaari pédale exemple. dafa am ñaari pédale. kené ki ki ci kanam bu pédalewul ki ci ginnaaw bu pédalee ba vélo bi day dem. mais ñun xam c'est le président qui nomme aux emplois civils. oui ah, mais oui on est d'accord. oui mais biñu choisir les ministres président lu mu ci ci ci le ministre de Mabouba Diagne xam par exemple pour le gouvernement buñu tabé premier ministre il peut proposer au président des profils qu'il choisit ce gouvernement là Ousmane Sonko mom moko ko moom moo maîtriser parce que Ousmane Sonko mo am vision nu réew mi bëgg doxé doxee nu gouvernement bëgg doxé doxee na def ay proposition nak joxal jox ko euh, président Diomaye Diomaye jël ko Diomaye comme comme Diomaye mun na am ay nitam aussi mu proposer ko Ousmane Sonko mais ñom ñëpp dañu bokk ay nit mais dama né la ce gouvernement non est décret bi. gestion collégiale Wow, décret mais c'est son qui choisit les hommes et les profils gouvernement ça discutable. non mais mais mais <laughs> Sonko le a xam gars que Sonko moo gën a xam que voilà ah. maintenant son avenir est ce que continuer ci coalition mais man qui képp ci gouvernement bi li dalone ñu bari en 2011 2012 ci coalition Macky Sall nga xamné buñ duggé ci coalition bi dugg ci gouvernement bi bo ba léegi mënatuñ won juk lu moy dal képp ko xamante ni créer nga sa ce mouvement wala sa parti à quelques mois wala ak euh, euh, ci quelques années nga bok ci ci ci ci ci ci ci ci coalition bi coalition bi gagné nga bok ci gouvernement bi ce sera un problème problème de de da ngay da ngay am problème pour pour pour pour génnaat pour taxawaat ñi ciy am chance wala mën a jàkkaar jàmmaarloo ak mais boo génnee looy wax soo génnee pour opposer wu lan ngay wax yow yaay wër fu nekk Pikine nag fépp nga wër fépp nga wër fa jaay fa projet Pastef ñu tànn leen yow say nit bokk ci ñi leen tànn. mais Momo quel est le discours de Mimi Touré aujourd'hui quel est le discours, de... discours de, du directeur du pré, directeur de cabinet du président de la République Sénégal yow xam nga suñu opposants yi loolu seen moo gën a ndaw ci ligne télé. Non, je, je, ne te, je, ne te, saisis pas. Quel est le discours de Mimi Touré aujourd'hui qui a été avec Maxal pendant 11 ans ouais, y qui, a un discours qui porte dans l'opposition à Maxal Non, moi, sans problème. Le discours de, non, du, mais je suis parfaitement d'accord. Marie Taounian. Mais je suis d'accord. Non, peut-être. Madame Zah, je pas. Mais Mimi Touré, Mimi Touré, moi. Par exemple. Mais après, ils ont opposé au Macky Ils avaient un discours. Mais, mais le problème, ce n'est pas le discours. Mais, mais tu peux asbi. bi. Taï, Mimi Touré, si vous avez une élection. 0,05% du ko am mënul wax lu dugg ci mën na nak def tenir ay discours euh ci biir ci biir coalition bon tamit mën na am 35% ah. yi am ci biir ci biir coalition ya su ko maki ngeen bon tamit mënon na am 35% non elle aura plus ah, voilà. su ko maki ngeen bon en mom ah. elle aura plus en tout cas là li ma ci mëna am moy moy